yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman barkeb Seexul Xadim bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di wax alhamdulillah di sant yàlla ci boole gi nga xam ne boole na ko ci jataay bu tedd bi nga xam ne yaakaar naa ne képp ku yàlla may fekke ak tal ak sago ba nga bokk ci war ngaa sant bu baax ñuy yëkkati nag sunu kàddu te jéggalu ci kàddu gi ñu yëkkati sunu jëwrin yi ginnaaw bu leen waxee ahlan wa sahlan di leen dalal mooy waa daayira waa daara mu Fatimul Bichri ñu jaar sunu nuyoo ci sunu jëwrin sëriñ xaadim waaye niñ ko waxee sànq rek ku ne xam ne fédération bi nga xam ne moo tënk daayira yi nekk ci dëkk bi yëpp su sunu jëwriñ sëriñ Adama Niass moom sëriñ Massamba mooy ki nekk ci bopp bi amaana xay na su fi teewal yëkkati kàddu gi ci la kàddu gi di gën a matee waaye comme murit ndigal te amaana woo nañ ko nekku fi te ñun itam yàlla def ñuy porte-parole mbooloo mi buñ ne woo amaana suñu kàddu dana tuuti waaye ñu jéem ko yëkkati rek ngir jëmi Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ñu daje fi kon ginnaaw buñ leen dokkeelee te ñaanal leen liggéey bii yàlla na ngeen ci daje ak mbirum sëñ Tuubaa te am nañ ci rafet njort bu wér a wér ginnaaw bu nu santee sëñ Xaadim mi nga xam ne mooy seen buntu fii ci Tamba te di ko ndokkeel di ko ñaanal yaakaar naa ne li sëriñ Maam Balla témoin ci moom yaakaar naa ne doy na sëg te noonu mu ko waxee noonu ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di ay taalibe noonu ko sëriñ Maam waxee noonu lañ ko xamee muy nit koo xam ne ku dëggu la ku maandu la. ku yiw la koo xam ne dafay dund Serigne Touba ci biir ak ci bitti kon ñu di ko ñaanal liggéey bi nga xam ne fii ci Tamba moo nekk ci bopp bi yàlla na ko yàlla kàttanal te dooleel ko ba li nga xam ne bëgg na koo liggéey ci daara ji nga xam ne moom la jiite fii yàlla defal ko ci lu kawe njortam ñun ñi nga xam ne ñooy wax ci turu fédération bi nag ñu leen di ndokkeel bu baax ndax ku ne xam ne Tamba sori na jamono ji tàng na képp koo xam ne bàyyi ay itteem dox ay kilomètres yu bari ngir dundal liggéey Serigne Touba bi fekk si la yaakaar naa ne amoo amoo lenn loo ko mën a faye kon nag liñ leen di ñaanal rek mooy yàlla ni Serigne Touba kàttanal te dëgërël leen te liggéey bi nga xam ne yéen koy liggéeyal Serigne tubaab yàlla nañ ci dajeeg mbigum Cheikhul Khadim ci daraje Khadim Rasoul fédération bi nga xam ne nag moo nekk ci Tamba te Serigne Khadim mi bokk ci mu murid di koy dundal ñoo ngi kontaan bu baax ci jotaay bi nga xam ne bokk nañ ko ak yéen. di am mbégte moo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem kon nag amaana comme sëñ Adam mi nga xam ne mooy jëwriñ ji nekku fi woon waaye buñ ñu woo daañu yëkkati suñu kàddu ci turu fédération bi ngir wane suñu mbégte ak suñu kontante ci jataay bu màgg bi nga xam ne yàlla boole na noonu ci tey kon ñuy wàcce suñu kàddu foofu rek di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. abada